loolu nag tey moo amoon ca direction générale des élections ab euh, ku tudd euh, euh, ab Ayib Daffé nekk mandataire Ousmane Sonko bi mu xëyee tey dafa dem ci bi waxtu wi di toll ci fukki waxtu ak benn muy 11 heures donc mu ànd ak ki nga xam ne moom mooy huissier bu Ousmane Sonko ñu ànd ñoom ñaar ñu yóbbu. décision bii nga xam ni mooy atte bi am ca Ziguinchor bi wax ne nañu dugalaat Ousmane sonk ci fichier électoral bi te lin ko dindee woon ci euh, fichier électoral bi jaarul yoon donc loolu décision bii moom la ayib dafa yóbbu yóbbu nag li nga xam ne moom mooy lettre bi ñëpp jox seen mandataire parce que képp ku nekk candidat defar nga lettre jox ko ki nga xam ne moom mooy sa mandataire léegi Ousmane Sonko lettre ba mu ba mu defal ayib dafa ayib dafa yóbbaale na ko yóbbaale tamit. ñi nga xam ne ñoom ñooy ay mandataire Ousmane Sonko ci région bu nekk comme ni ko candidat candidat yëpp defee woon léegi nag bi mu demee ñu daan ne leen mënu leen a dugg ci biir DGE donc dañ leen a tere ñu dugg ci bunt bi lan yem ñu daan ne leen fii mun leen fee dugg agent bi leen ko wax ñu ne ko fan nga ko teg moom ay Daffé ak huissier bi mu àndaloon ni leen fan ngeen teg ni man su ma ñëwee du ma dugg ñu ne ko yow mënoo fee dugg ndaxte euh, dañoo war a yëgle ne yéen ñëw ngeen. ah Ayib dafa toog di xaar après agent ba fa nekkoon donc policier bi daa di woo kilifaam yi ni leen Ayib Daffé ngi ci bunt bi daa bëgg a ñëw pour déposer pour ñu retirer fiche Ousmane Sonko fiche parrainage am foofa mu taxaw ñooñee nekk ay kilifaam moom policier bi taxawoon ci porte bi ñu ne ko noo Ayib Daffé nee ko mënta dugg ndaxte tey du ñu recevoir kenn ñu ne ñoom tey du ñu recevoir kenn kenn mënta dugg kon loolu la ñu wax Ayib Daffé naam newuñ dañ duñ ko jox ay fiche parrainage mais dañ ni kenn du fa dugg tey ci bés boo xam ne dañuy liggéey amul kenn ku mës a nekk euh, euh, candidat yónnee sa mandataire biñ ko commencé ba léegi képp ku yónnee sa mandataire jox ko sa lettre de désignation bu yeggee dañ koo jox ay fiche parrainage am Ousmane Sonko kese lañ joxul woon te léegi juge bi nee na leen delloo leen ko ci fichier électoral bi ba jox ba jox leen ko ay fiche de parrainage kon nag li nga moom moo am. mooy mooy que Ousmane Sonko kon moom dañ ko tere dañu tere Ayib dafe jël tey ay fiche de parrainage bi ñu demee kon loolu lañ seetlu ñun ñëpp que loolu moo am loolu nag muy njombe rëy parce que ay tappale la ñuy jéem pour tee euh, Ayib dafe mu teel a jël ay fiche de parrainage am parce que ñoom xam nañ ne mun ñu koo tee jox tee jot ay fiche am parce que réew mi bu ñu fi xësee jëlub décision décision bi dañ koy respecté kon Ayib Daffé ci information bi nu am tey yéen ñëpp ngeen gis ko mooy dem na à la direction générale des élections pour déposer euh, euh, la lettre de Ousmane Sonko bi wane ne moom Ayib Daffé moom mooy mandataire Ousmane Sonko pour ñu jox ko ay fiche de parrainage am bi mu demee may ñu ko mu dugg dañ ne ko ci bunt bi nga mën a yem xaaral ñu woo kilifa yi. bi ñu woowee kilifa yi kilifa yi ni leen bu leen ko bàyyi mu dugg ndaxte tey du ñu recevoir kenn kon nag loolu ci administration moom day liggéey nga xam ni demoo fa heure boo am si tëj nañ parce que onze heures ci suba kenn mënta layale ni ñoom dañoo tëj même bu nekkoon en réunion fii ba élection yi di jeex am nañ ay bureau yoo xam ne ñoom ñooy saytu élection yi képp ku ñëw ci mbirum élection yi boo ñëwee dañ laa war a recevoir kon loolu jàpp naa ni xaw ma fu ñu jëm ak ñoom mais euh, musiba la nar a jur Sénégal parce que jaay doole moom mooy xeeñ waxaguñ nag ne duñ ko jox fiche yi mais dañoo taxaw ni ñoom tey mënuñoo recevoir kenn léegi nag loolu bi mu amee avocat Ousmane Sonko yi dem nañ nag léegi ñoom collectif avocat Ousmane Sonko yi dem nañ ñu bind seen déclaration de presse def seen communiqué de presse boo xam ni dañ koo euh, jëmale ci ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, euh, ñii dëkk ci réew mi ak ñi dëkk bitim réew pour que ku nekk mën koo yëg loolu la ñu décidé ni moom la ñuy def léegi nag dama leen di liiral li nga xam ni moom la avocat Ousmane Sonko yi bind ci li nga xam moo xew ca direction générale des élections bi Ayib Daffé demoon pour yóbbul Ousmane Sonko Euh, lettre bi nga xam moom la Ousmane Sonko waxee ni moom dafa bëgg retirer ay fiches de parrainage am comme ni ko defale yeneen candidat yépp te bañaloon ko ko mais bii yoon juge bi décidé ni nañ ko dugalaat moom Ousmane Sonko donc mu am les mêmes droits que tout le monde léegi nag loolu lañ dem ñu ànd ci ay yeexital loolu tax avocat yi génne communiqué bii nu ma leen nar a liiral su ma leen ko liiralee ci tubaab ba pare danaa ko liiral ci anglais su ma ko liiralee ci anglais ba pare dinaan ko tekkeel ci wolof su ma leen ko tekkilee ci wolof ba pare nag dinaa ci def samay jàngal kon nag ñu commencé liir collectif bi li mu bind muy collectifu avocat yi mooy ñam ñoom ñooy layal Ousmane Sonko ci lii nga xam ne moom lañ ko teg ci eh, jaay doole collectif des avocats de monsieur Ousmane Sonko communiqué à l'attention de la presse nationale et internationale de l'opinion publique nationale et internationale ce jour 19 octobre 2023, l'huissier de justice maître Wende Dien a été requis pour la signification de l'ordonnance numéro 01 2023 du 12 octobre 2023 rendue par le président du tribunal d'instance de Ziguinchor par laquelle la radiation de M. Ousmane Sonko a été annulée et par voie de conséquence sa réintégration immédiate sur les listes électorales ordonnées. Une fois à la direction générale des élections, l'huissier de justice est le mandataire du sieur Ousmane Sonko, chargé de récupérer en même temps les fiches de parrainage, ont été tous deux et conduits et empêchés d'accéder aux locaux. Le directeur général des élections a pris prétexte qu'il ne pouvait les recevoir aujourd'hui, sans aucun motif, et les a fait éconduire tous les deux, aux heures de service, se rendant ainsi auteur d'une entrave à l'exécution d'une décision de justice, à l'exercice de la fonction d'huissier de justice et d'une voie de faite l'article L47, alinéa 4 du Code électoral prescrit, prévoit que les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision et du traitement des mouvements. Cet état de fait consomme en outre la volonté de l'État du Sénégal de ne pas se conformer aux décisions de justice rendues par les magistrats. Ce mépris à l'endroit de l'institution judiciaire est conforme à la position de l'agent judiciaire de l'État qui, après le verdict du 12 octobre 2023, avait indiqué dans un communiqué rendu public en dépit de cette décision Ousmane Sonko ne peut être réintégré dans les listes électorales. Or, même le pourvoi en cassation, projeté n'est pas, en cassation projeté n'est pas de nature à suspendre l'exécution de la décision de réintégration. En application des articles 36 et, 30, et 74 alinéa 2 de la loi organique portant création de la Cour suprême. Cette situation est d'une extrême gravité en ce qu'elle sape les fondements de la République et de l'État de droit. La défense de M. Ousmane Sonko alerte en conséquence l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de se produire au Sénégal, où les magistrats rendent des décisions que l'État refuse d'exécuter en violation de la loi et pour des ambitions purement électoralistes. La défense de M. Ousmane Sonko appelle le président de la République, M. Macky Sall, garant du fonctionnement normal des institutions et du respect de l'état de droit, à faire assurer l'exécution des décisions rendues par les cours et tribunaux telles qu'il l'avait lui à l'occasion de son discours du 4 juillet 2023.